président rek lañ gëm si politique moom mooy suñu kilifa te duñu jàpp naa ne ñu mës a def lu koy yàqal waaye aussi situation ñu toll tey soxla nañu aussi président ñu soxla nañu aussi président jël ñu dañoo soxla toog ak suñu kilifa moom kese la mën a toogal jamono ji mën ko wax lu ñu métti moo aussi mu jox ñu ay orientation pour que ñu mën a xam ne ñuy taxawee tey soxla ñu kenn ku dul suñu kilifa le président de la République looloo tax ñi sabab jotaay bii pour que suñu kilifa le président dëgguñu mën ñu recevoir ñu wax ko ñun lu ñu métti moom it mu mun ñu wax aussi nu ñuy taxawee ñu waxtaan pare mooy suñu kilifa parce que ñu yegg si yenn situation yi parce que lenn am na quel que soit alpha ñun nekkuñu ay ndaw yoo xamante ni dañuy jéggi wala di beddi suñu parti wala di yàqal suñu suñu suñu président de la République donc vote sanction moom duñ ko mës a def parce que vote sanction mooy di dem votel koo xamante ne tey ñëpp xam nañ ni si xujj am na koo xamante ne teg nañ ko nee na ville de Dakar la bëgg a nekk te ñëpp xam nañu son passé ñëpp xam nañ ni c'est quelqu'un koo xamante ne amul compétence ñëpp xam nañ ni c'est quelqu'un koo xamante ne ñitu violence la kon Dakar soxla na kat mais soxla ñu ñitu coow ñitu fitna donc ñun lu ñuy def mooy lu ñu bëgg suñu bëbët bu amul bu ñu gisul le président toog ak moom waxtaan ak moom ñu wax ko ñun lu ñu métti waxtaan suñu kilifa ñun dinañ def vote alternative. vote alternative mooy am na ñoo xamante ne ay jegeñaale président ñu teg seen i liste fii si biir Dakar ñuy fii di ko doxal dara bu amul ñun incha allah dinañ jéem a xool kenn si waa njabootu président ñooñu ñu jàppale leen. ñu jàppale leen pour pour jàppale leen pour que voix yi mën a dem si président. mais ñun moom jamais de la vie ñuy jég di jéggi la famille politique du président Macky Sall di jàppale keneen loolu moom duñ ko def ak quel que soit suñu mécontentement donc mbir mi dinañ ko wéyal si communes yi les responsables communaux sont là wax naa ko am na ñoo xamante ne ils vont nous rejoindre quatre coordonnateurs communaux ñoo xam ne dañu liggéey woon donc dinañ ko wéyal si communes yi. parce que aussi ndaw ñi ñun ndaw ñi lañ fi nekkal ndaw ñi lésé nañ leen ndaw ñi tey mer nañu ndaw ñi tey frustré nañu ndaw ñi tey na nañu donc il est temps que président de la république xam loolu xam ne situation bi moo am si Dakar ba pare ñu ngi koy tàllal loxo le président ñu ngi lay déglu foo ñu woo dinañ ñëw fekk si la mais le président de la république encore une fois on a besoin de vous parler le président on a besoin on a de se confier à vous tey ku gis salle bi nu mu mel tey ba si biti tey ñu ngi jàpp ay ndaw yoo xamante ne si fii la ñu waroon a ñëw ñu ngi leen jàppal parce que fees na lii day wane encore une fois la force que nous constituons que la COJER de Dakar constitue au niveau du département mais day wane aussi engagement ak témérité bu ndaw ñi am pour que le président de la République xam na ne quel que soit alpha ñun suñu engagement si gannaawam en tout cas du mësaton lu versatile donc euh, si en tout cas en ces en ces mots laay laay jeexale version wolof bi di leen jaajëfal merci donc euh, jëlbel sama euh, si wax bu may wax sànq wax naa que nee naa leen ñun ay ndaw le président de la république Macky Sall lañ duñ ndaw benn ministre Macky Sall moo tax ñu dugg si politique le président de la république lañ jël def ko kilifa si politique moom lañ gëm tey moom lañ gëm ëllëg donc tey lu ñu jàppoon mooy le camarade Diouf ñun ëpp ñu ko expérience politique tey it ñun gënuñ ko xam aussi élection yu ñu jëm ni spécificité élection bi donc moo enjeu yu élection yi am moom xam na ko tant plus que le président de la République moom la jox drapeau Benno Bokk Yaakaar mu nar ko porter au plan départemental. kon ma ñun ñu jàpp ne enjeu yi waroon na tax tey moom mu jéem a xool à travers la liste nu muy defee de telle sorte que dina doon une investiture inclusive boo xamante ne dina permettre ndaw ñi ñu si ñu war a dugg si liste yi dugg si liste yi ba pare am position bu honorable boo xamante ne yenn ndaw yeneen. ñenn ñi moom nu mu ko décidé ñooñu am ko. et puis aussi responsable yoo xamante ne ñëpp xam nañ ne ay kilifa lañu si parti bi au niveau du département de Dakar mu honoré leen honoré leen parce que dafa am solo list aussi dafa am luy def prestance su liste mooy composition bi donc yenn kilifa yi ni ñu leen tegee ci biir liste bi nekk na lu doy waar loo xamante ne ku gis liste bi da xam ne lii daal kenn mënu ko comprendre raison pour laquelle ñun jàpp nañ ne comme liste bi jàll na amatuñu ku ñuy waxal. kenn kese la ñu mën a waxal mooy ku jox mandat le ministre Abdoulaye Diouf Sarr te ku ko jox mandaa mooy suñu kilifa ñu ñëpp muy le président de la République Macky donc moom ñun moom la ñuy waxal di ko naan situation bi fu mu toll moom kese kese kese lañu ñu bëgg toogal moom la ñu bëgg a gis bëgguñu gis keneen bëgguñu wax wax wax keneen te duñ ko def suñu kilifa la ñu soxla moom la ñu bëgg a gis wax ko lu ñu métti moom it mu wax ñu ñu xool orientation xool lu ñu rek lu ñu mën a régler lii waaw merci